mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq di ñaanal a cheikh Mouhamadul Muntaqa sunu boroom yàggal ko fi te wéral ko ba naal yi mu naal yépp màggale ko di nuyu ak a ziyaara njabootu sëriñ si xabsa gi yépp ñaanal ki nekk ci bopp bi Cheikh Abdoul sunu boroom yàggal ko te wéral ko di nuyu Serigne Cheikh Jorel ak Serigne Mame Balla ak mboolem njaboot gi fi nekk yépp noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di nuyu sunu kilifa yu baax yi nu bokkal jataay bi te nu wàcc seen kàddu léegi Serigne Mbakke Abdourahmane noo ngi lay nuyu di la ñaanal yàlla sunu boroom yàggal la ci sunu kanam te wéral la taxawaay bi am na solo te rafet na lool yàlla yàlla gën laa dëgëral di ko ñaanal docteur Serigne si la ci waxtaan yu am solo yi ngeen ñu baaxe te mu nekk njariñ loo xam ne dafay ñeel ki jiite moo xam muy kilifa diine ak ki toppe mu di taalibe ak ki jiite àdduna lu ci nekk rek defe naa aw yoon la woo xam ne mënees na koo xàll kenn ku rek mën caa jariñ kon yàlla na yàlla fay leen sëriñ Fallou noo ngi leen di ziyaare bu baax di nuyu sama mag sëriñ Ibrahima Fallam moom it di sunu mag waaye di sunu xarit di jaajëfal mbokk yi ci jataay ba solo bi ñu waxoon nu nafar fàttali tuuti ci dunduk sëriñ si sa mi nga xam ne kenn la ci ñi toppoon cheikhul xadim di kenn ci ñi bokk ak cheikhul xadim lépp waaye doon koo xam ne it dafa am taxawaay bu am solo waaye amit jëf joo xam ne ju ràññiku la joo xam ne waxtu wu nekk ñooñ jamono mën nañ ci dellusiwaat ñu baax ñu sell ñi nga xam ne bi ñu bokkee ak sëriñ bi it sëriñ bi yar leen defar leen dañoo am taxawaay bu rëy boo xam ne waxtu wu nekk bu ñu ko dee fàttali ñu jamono danañ mën a xam ne am nañ ay ay royuwaay yoo xam ne mën nañoo delluwaat ci ñoom di leen roy muy koo xam ne nag day mel ni li ëpp ci ñi koy tudd sëriñ Cheikh Absa la ñuy wax te mooy Cheikh Sidil Kabir di doomi sëriñ mbakki Mor Anta Sali mi nga xam ne doy na rekk ci taxawaayam ci xam-xam ak jëfam yu baax ak barkeel gi ko yàlla barkeelam ci ak njabootam waaye it nekk koo xam ne bi ko sunu boroom tànnalee askan wu baax woo wale tam bokk xaadimu rasuul sëriñ Mbakke Mor Anta Sali soxna sa Jaxate mi nga xam ne it mooy way juróom di mbokkum maam ma Jaxate kala mi nga xam ne ku ne xamoon na digganteem ak Serigne Mbacké Mor Anta waaye defe naa ñu bari gis nañ ay seere ak ay bind yoo xam ne jëme na ko ci Xaadimu Rasuul teeloon ko bàyyi xel lool te teeloon a xam mbiram te nangu woon ko muy koo xam ne it ba mu feeñee ca Mbacké Kajoor dafay mel ni di dëkk boy juróom woowu di sëriñ Mbàkke Mor bokk ci njabootu sëñ bi mujj nga xam ne ci caati sëriñ Mbàkke Mor Anta ci lay bokk di koo xam ne it li Seex Musaa doon wax ba muy tudd doomi sëriñ Mor Anta Sali yi da caa indiwaale turam ci darajay waaju naa si sa nanga ma yërëm maag sama ndey sa te def ma tab boo xam ne duutu jeele te dolli may murit te may ma doole kon ba muy tudd njaboot googu da ko boole ca loola ngir fam ca bokk defe naa it boo demee ci Serigne Makhtar Bintaloo ci téere boobu mu tuddee tasxilul matalib fi tawassuli bi saadaati ahlul magharib da nga fekk mu indi ca nam doon indee càllal ak ñi bokk ak Serigne bi yëpp it noonu la ci indee Serigne si Absa doon koo xam ne it mbooleem fi doomi soxla di jaar fa la jaar ndax sëriñ bi ci boppam moo ko joxoon ndigal wala moo ko joxoon sëriñ ndaam abdourahman lu mu jàngal ko alxuraan ba mu wattu ko wattu gu wér ginnaaw ba ci ndigalu sëriñ bi ci la dem ci sëriñ Maam Mor Jaara borom Saam moomu nga xam ne géeju xam-xam la te kenn ku nekk xam na ko ci ñu bari ñu jaar ci keppaaram jànge ci moom xam-xam mu jël ci xam-xam bu bari ci xam-xamu sharia al islaamia waaye xam-xamu alquran ba mu dajalee loola nga xam ne géeju na ci xeeti xam-xam yépp yàlla may ko it mu làmboo jikko yu baax yi nga xam ne bu ñuy wax diw boroom xam-xam la ma ngay feeñ ci ay jëfam te mooy koy jikkoom bu ñuy wax diw boroom nangam la la koy feeñal mooy jëf ju baax mooy jikko ju rafet defe naa yonente bi alayhi salaam mas naa wax am ku ko laaj lan mooy njekk albir mu ne albir xusnul xol kon njekk mooy jikko ju baax jikko ju baax nag mooy mboolem nit di jëf te bu koy jëf di ca sàkku ngërëmul boroomam waaye di ko jëfe ci na ko yàlla diglee te man caa amee ngërëmul yàlla nga xam ne mooy li yàlla tagge ay xejjam ak gaayam yi nga xam ne ñoo tege ca yoon woom ngërëm kon jikko yu sell yooyu ko yàlla jagleel it mu doonoon koo xam ne moom sëriñ si sa kun xamoon la te ràññ ko ci ak iraadatu sadiqa te moo di ak taalibe ndax lañuy bokk bokk ak sëriñ bi dañoo jaayoon liñ ñu bokkoon ak sëriñ Touba jënde ko nag mbirum yàlla mi nekk ci moom foofu it sëriñ bi moom it lim jëlee ci boroomam la def ci ñoom ñëpp damay gis Cheikh Ibrahima Diop almachan di wax ne ñi toppoon sëriñ Touba bi sëriñ bi noppee ci ñoom daal melokaan wii lañ am al islaamu diinuhumu wa shukru laydanuhum wa sabru aadatuhum wa kullu sajaat kon defar ga mu leen defar ca melokaan yu mat yooya tax ñu ràññi ko ca ak lay tënk melo yu murit yépp nga xam ne mooy bëgg sa sëriñ jafe ndigalam bàyyi diingat bàyyee ko sa bopp lu ca nekk sëriñ Cheikh Absa defoon na ko ci kanam ku tedd ki xaadim rasuul nekkoon koo xam ne it dañoo waxoon ne ku nuru way juróom la sëriñ Mbàkke moo nat sëriñ ci bind nga xam ne ràññi ko na ci nurook sëriñ moor noon koo xam ne ni bi dafa méngoo woon mbiram ci lépp gis nga bi ni ko sëriñ bi boole woon ak sëñ Daam Abdourahmane Lo noonu la ko boolee woon ak seex Sidil Muxtaar maam Cheikh Anta Gaawaan bi sëriñ bi dem ci géej gi nga xam ne bi sëriñ bi nekk Daaru Salaam dañuy wax ne sëriñ bi ci biir almeeri Daaru Salaam yooyu am na ëkk ku fi nekk koo xam ne sëriñ sëriñ bi daana fi ñëw guddi deyaale ak nga xam ne sëriñ si sa da daan yor làmp bi di nit feggoog maam Cheikh Anta Gaawaan bu nu eggee sëriñ bi ne ca béréb ba ne ci munajaatam ñoom it ñu bóof ca wet gee ba sëriñ bi nopp ca la muy def kon ku taxawoon woon la ak sëriñ bi it jëkk géej gi di ñëw doonoon koo xam ne it ku nu ngu woon a jaamu yàlla waaye ku setoon ci bépp gàkk la ndax mel na ni sëriñ bi mas naa wax ne yàlla setal na sëriñ ab sa ci lépp loo xam ne bakkaar la waaye loola lan la ko dolli woon ak gën soobu ci jaamu yàlla waaye gën a sàmm gën a wéetal boromam doonoon koo xam ne it waxtu wu nekk danaan siyaare sëriñ bi ci bérébam yépp xam ngeen ne dem na gànnaar dem na céen digganteem ak njaareem it lu leer naññi la kon day mel ni bu doon ña amoon ngërëm ca sarsaara ña jaayante woon ak sëriñ bi wala ñu jaayante woon ak sëriñ bi te fekke woon ko gànnaar bokk na ca ña nga xam ne làmboo inna alladina ila sarsara qad qasadu siyaarati faaraxu daarayni aw zaara te gànnaar nekkul woon béréb bu yomb ku fa mas a dem rek danga boole am kattan man alquran waaye da nga xiif ndax béréb bu tar la woon céyeen it kadalika noonu la meloon mag ñi bu ñu masaa bëgg a dem céyeen faaw ñu am autorisation te lañ leen di teg ci la ca war lépp ci fay ay impôt lépp dañu koy def présenté li ñu war a yóbbu lépp ak ñi war a àndal waaye téewul bokk na ci ña nga xam ne tey ni mu àndeek sëriñ bi ci gànnaar noonu la àndeek sëriñ bi ca Ceyeen te Ceyeen la Cheikh Ibrahima Diop almashari waxe waxoon rek haysul xadimi sawa haysul muridi hawa sirran yutahiruhu min kulli adnasi ba mu waxee ne amatuma ci Baxdaad wala Faas ak cofeel sama bëgg gépp mi ngi jëm ca Jolof gi nga xam ne fa la Sëriñ Tuubaa nekk foofee nga xam ne fala murit bi di làmboo ay bóot yoo xam ne dana ko taqaleeg lépp luy ay taq ak lépp loo xam ne ay gàkk la doonoon na koo xam ne it kon fu sëriñ bi ma sa nekk mu fekk ko fa waaye lii ñu doon waxtaane léegi it doonoon na mbiram muy liggéey ndax sëriñ bi ci loolu leen tàggatoon defe naa sëñ Jili Gay mi may nuyoon te mu sëñ Lamine Gay day mel ni maamam daana am lu mu daan wax ci sëñ bu ñàkk a sanc ak bu ñàkk jàng ak bu ñàkk liggéey ak bu jaxasoog buur nga xam ne yam ca misaal kon moo tax sëñ bi doon leen ci tàggat daana wax ne doomi soxna bu jàngut bu sëñcut réer bu jàngut taq bu liggéeyut loof bu jaxasoog buur yàqu kon loolu loolu sëñ bi ko tàggatoon ci ñoom moo tax defe naa ay jàmbaar lañu woon yoo xam ne sëriñ bee leen joxoon digal lañuy mën a jaamu jaamu jaamu yàlla lañuy ñuy mën a góor góor lu mu joxoon leen digal nu sañc ay dëkk loolu def nga sëriñ Moussa Ka wax na ko Cheikh sa Mbacké toj na àllub jooreel nasro ya wommat leen soree naag duural nga xam ne yemul ci rek toj ay dëkk dajale fa aw nit waaye da caa boole nag lii mu leen doon def te yi sëñ bi digle woon ñett yooyu yëpp la ca boole woon ilmu naafi amalu saalih adabul mardi nga xam ne yett yooyu mooy tënk yoon wi mooy jëfe waaye xam-xam nga jëfe xam-xam bi waaye teggin yu yu yu yu gërëm loolu day mel ni ki sañ ci ab dëkk tàggat aw nit boole fa jaamu yàlla liggéey defoon na lu mel non mu ne kon euh, Serigne Cheikh defoon na lol te lol sore nak dural leram nga ak hikam ya ak taram ba amul fowa waa fudul Serigne bi la ko yàlla joxoon ci ay hikam joxon ko ko ci ab tar neena ken dew ko gis ci ken kudul Cheikhul khadim khadim Rasul kon nekkon nako lambo legi nu ngoo liggéey te lol lu am solo la mam cierno borom daru dan wax ne kudul liggey do am dara dara do tok kudul tok du jamu yalla te ku dul jaamu yalla dem aljana amna na mbokk mos a ñëw na dama soxla ndimbal fekk ñu tollu ci jeexat tool yi borom daru nako dem ci tool yi jeexaat muy jeexaat di di di di dajale waye lu ñew borom daru wecce ko ko bam doon alal ju bari bam tollu ci yeweku di yeesalat ndimbal lam doon sakku borom daru jox ko alal ja mu yemu ci lool nako alal ji da bari lool serigne bi nako ah, borom daru nako ko ko fi liggey de daal nako bo defon ni nak man nga baña bañ ken yitte moy nungo liggey moo tax Serigne Touba daan wax Cheikh Issa Dieng ba amoo taalibe bu dul liggéey mu ne ko déedéet mu ne ko boo xamee wàcc ko ndax ku dul liggéey neexul dimbali loolu nag dafa bari bëgg a bëgg bëgg bokk te doon ngoo jëf moo tax mag ñi fi ne boo leen seetloo tund wuñ féete woon ñoo daan fa jitte yi te kenn mënut a dox seen diggante ak seen borom looloo leen juróoloon barke waaye moo leen juróoloon it bu nee yaa rabbi rek yàlla nangu ñaan ndax nit ki mu mënta boole lekk ab safaan ba noppi di ñaan yàlla muy nangu noonu ko alayhi salaatu salaam waxee ne tara rajulun yarfau yadayhi ila sama ya rabbi ya rabbi wa mataamu xaraam wa malbasu xaraam wa xudiya bil xaraam fanaa yustajaabu la moo tax dinaa wax ne léegi-léegi nit góorgóorlu moytu jigéen góorgóorlu moytu naanum njol waaye lu tax mu ñaan yàlla mu nangu la ko indi mooy day lekkul léew ndax loolu bu jox ko rek da koy tudde xéewalu sëñ bi jàpp ne barke la bu ñëw fi moom fekk na mucc ca mayug yàlla gee muy ko ci leneen waaye mucc ko ci jëfandikoo lu xaraam looloo waral jafe lool te defe naa seetlu nañ ko li ñuy def ngir ñaan nangu waaye moom kon daa boole woon di nos yi di leen mat ak di leen tàggat ci yoon bu baax ak yoonu mat mu doonoon koo xam ne it ku mënoon a joxe addiye la moom Serigne Cheikh Absa nga xam ne Serigne Touba ko seereel ne Serigne Cheikh day dafiy indi rek waaye du fi jëlee ak barke bi ni mu waree Serigne Touba ak ni bokkeek moom ci lépp waaye mës sa jël dara fa Serigne bi waaye la ca gën a yéeme daana ñëw bokkul ci xat-xatloo ci bunt waa muy wan ne nii laa bokkeek sëriñ bi bu ñëwee daana yam ci kenn ku mel ni Seex ma Masamba wala kenn ku jege rek mu jébbal ko addiyam delluwaat ci ay yitteem te nekkoon ku ngeme addiya te mënoon ko joxe doonoon koo xam ne it ku amoon ab diggante la bu rafet digganteem ak ki bokkam nga xam ne daana waxal boppam ne Sëriñ Tuubaa mooy sama sëriñ mooy ki may topp di ko roy waaye Maam Mor Jaara nag mooy sama way jur Maam Cheikh Anta Gaawaan mooy sama mag ndax sëriñ bi daf leen a boole loli day melni ni bis bi nga xamne tay ñing koy fàttaliku muy ñaar fukki fan yi defena mi ngi mel ni la señ bi joge kokki guuy kokki guuy dem naa fa biig mooy seen bisu waxtaan waye señ bi bi mu joge ñaxal defena kokki guuy la señ bi dem kokki guuy la joge ñew ñew daru salam nga xam kon moy bis bi moy bis bi señ bi ñëwoon eh, ñew daru salam moy bis bobu nak te señ Cheikh abdou nak amon ci taxaway bu ràññiku boo xam ne kenn du tuddu ngalu daru salam kenn du tuddu taxaway daru salam te tuddoo woon Serigne Cheikh Absa ngir jëfam ju réy loolu kon day mel ni ay ngërëm yu yu yaatu amee na ko sëriñ bi ba tey bis bi nekkaat bi sub sant waaye nekkaat bi su ngërëm doonoon koo xam ne kon ku amoon ay jagle la ci sëriñ bi waaye it doonoon nit ku tabe tabe waaye doonoon tab bu yomb a gis xam nga tabe baax na lool waaye boo jafee gis nag faj jiite dana jafe ci yow ndax tab bu ñuy tëj di ko garde lu mu baax baax borom yitte ju jàmp mën na ko bañ a gis waaye Serigne Cheikh Absa nag ku tabee lool xam nga tabe ba da ngay sol mbubb sax mu rafet nit sàkku ko ci yow nga àbb mbubb jël mbubb ma jox ko ngir ngir ak tabe nga xam ne loolu la muy tegtale rek mooy desalutoon dara ci mën a joxe dara loolu defe naa it euh, loolu naar boobu doon wax ne Cheikh Absa Mbakke ka faxur yaana man zaarahu naa la tawfiqan wa ridwaana nga xam ne waxuma tabe joxe yéere nga xam ne dalay fegal ak rafle waaye nag da caa teg ne képp ku ko ziyaare nag te jëm yàlla rek tax danga nga am tawfiix suñu borom waaye danga nga am ngërëmul yàlla doonoon na koo xam ne lees ko mas a jox it da ko daan joxe nga xam ne loolu bokk na ci liy defar nit mooy bañ a def loo am jagoo def naa sëñ sëñ Malick Basin si am na tubaab bu ko laaj ne ko luy yàq kilifa mu ne ko yent loo xam wax ko luñ la wax nga xam wax ko loo am jagoo ko loo meer xul ko nee na yent yooyu day day day day yàq kilifa defe naa ku dul yilif kilifa it loolu dana la yàq mooy loo xam wax ko am na ñoo xam ne bu ñu amee xabaar bala ñoo kontaan bu ñu gisul kenn sax lu mu guddi guddi danañ jar woote baa ñu wokkaal ko ngir bëgg ko wax mooy loo xam-xam wax waaye lu ñu la wax it faaw nga waxaat loo loo mer xul ko nag la naqari rek nga jàmbat ko kaas ko day yàq kilifa ba ca gën a doy waar nag loo am jagoo mooy doo jox kenn doo dimbale kenn ñeent yooyu bu ci nekk Serigne Cheikh muccoon na ci loolu nga xam ne mënoon naa denc mbuut ndax lu ne Serigne bi wax na ko ci secret yi biir ak yooyu bitti lu ne làmboon na ko ci mbirum sëriñ bi waaye téewu loolu mu mënoon ko mandu waaye boole ci it doon koo xam ne lépp lu ko mas a diis dawu ko jàmbat boole ci nag lu mu mas a am joxe na ki dem bay simmi mbubb di joxe ak leen lu ci nekk Cheikh Amadou Fadal mas na ko jox lal boo xam ne lañ ca misaaloon mooy moom da koy joxe rek te noonu la ko defee mooy dara dara daawu ko ci ay ay ténqam noonu naari gànnaar yi doon takki sëñ Tuubaa ida maxtawat yowman xanaatiruka fii taqassama al aafuuna yow maxtiwaihi nga xam ne lu ma sa tegg ci téngi sëñ mu joxe ko dañoo doonoon sëriñ Tuubaa ci ak tab ci nu ngoo joxe seen alal melooy sëriñ bi rek lañ lañ lañ melowoo woon sañ ci ay dëkk nag féetewoo jaamu yàlla nga xam ne tey kenn koo ci tànn ci ñoom ci ne damay wane model ci tabaxu sëriñ Tuubaa ak defaru sëriñ Tuubaa kenn ku ci nekk ñoom da koy mat mooy doo ko jëm ci diine la mu war a xam da koy xam fa mu war a toll da koy toll waaye la nga koy ñàkkee jëme ci diineet ndax ak nungoo liggéeyam ci nungoo taxaw nu war a taxaw ci jaamu yàlla noonu lay taxawee ci nungoo liggéey ngir mën a sàmm ngoram waaye ngir mën a moom boppam noonu la jëlee léppam it jeexalaat ko ci biir Serigne Touba ba defe naa ku xam Serigne Cheikh sa xam ak njabootam ñoom ñëpp dañoo seey ci ak taalibe ci biir kër Xaadim Rasul waaye doon boroomi cërit waaye doxee doxin woo xam ne seeni ci ràññiku na waaye melokaan wan doon doxee mooy lépp lu ñ am jox ko sëñ bi te lu nekk sëñ bi ñu ci alal wala dara ñu bàyyi ko bañ koo jël loolu melokaan la mu mat wu ko yàlla jagleeloon kon jëmm ji ñuy fàttiku tey daal euh, lii fi boroom xam-xam yi indi waxtaane ko méngoo naa ak mbiram méngoo naa ak mbiram ndax bu dee xam-xam bu rafet la ak jaamu yàlla doonoon na ko koo xam ne guddeeg bëccëg mi ngi sóobu ci wéetal boromam di ko jaamu waaye it nekkoon na liggéeykat ndax moom mënoon taxoon mu mën a sanc ay dëkk mën ko gor xamub liggéeyee tax mu mën a sëkkalub déeg baylu ci defe naa ñu bari ñu xamul ci wàllu suuf wala wàllu mbay dara bu nu gisee ab déeg defe naa leneen lañ cay lañ cay lañ cay jéem a dañ koy dégg waaye dee suñu dee su ci jéem a def dara waaye xam ab liggéey ak man koo liggéey moo tax mu sëkkalu ko nag baylu jilu ca nga xam ne la ca meññee meññeewut meññewut ci leneen li ne ci biir tool bi kon xamub liggéey taxoon mu def lool waaye loolu lépp nag mu boole ko kon teggi ni sëriñ bi di wax te teggi ni mooy lan ba ca jëkk mooy am worma sëñ Tuubaa bu ñuy leeral ay teggin dane wattu worma yitte ju kawe rafet jëf sant yàlla ak dogu dox jëm ci loolu mooy tënk lu ci nekk nekkoon na ci moom ndax ku jox war ma sëriñ bi boo ñëwee gisoo ko mën ngaa jox sa addiyee ku la neex mu jottalil ko sëriñ bi te nga jege ko te sëñ bi bëggoon ko ba bu ko masaa gis di ko xoolee bët yi way juróom ba waaye kon tegginee ko waaye yitte jure yi moo ko may la muy bokk bokk ci euh, njaboot gu mujj goog sëriñ euh, Mor Anta Sali teewul te jii foo ko tudd ci àdduna bi ñu xam kan mooy sëriñ Cheikh nga xam ne la ko war ci taxawaay loolu lépp def na ko waaye sant boromam it ci jëf ndax la ko Serigne Touba loon ne boo leen bëggee xam mbirum Serigne Cheikh Absa xool leen ko ci suuratul Fath nga xam ne kat borom bi waxoon na yonent bi alayhi salaatu salaam yow kat ubbil nañ la waaye jéggal nañ la ñu la ci dara waaye dëllë la nag wa yansuruka Allahu nasran aziizan ba loola boo ko xoolee Serigne bi nee na mooy dundu Serigne Cheikh Absa boo ko bëggee xam kon ba ko yàlla baddee leet ba noppi yàlla taxawu ko ci melokaan yu mat yu nekk ab jàngale la bu yaatu yaatu kon noo ngi sant mbokk yi. noo ngi leen di gërëm di sant di jéggalu nag kàddu yi ñu yëkkatiwaat ci kanam sunu kilifa yi eh, sëñ Lamine noo ngi leen di sant bu baax di leen jaajëfal di sant sëriñ Maam Thierno sëriñ Cheikh Thioro noo ngi leen di gërëm bu baax na ngeen lu balaq lu des ci wax ji xam naa gàttu alliu geeg ak sunu kilifa yi nu feggoon la waaye lu ci jàll te jubit alhamdulilah noo ngi leen di sant bu baax noo ngi leen di ñaanal bu baax yàlla na yàlla yàggal leen yàlla na yàlla wéral leen ndax ci rawatina yoonu murit yàlla rawatina yoonu murit yàlla na yàlla gën leen a yàggal ba ngeen bokk ci ñi sëñ bi puukare woo bu ëllëgee salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu